Walf Quotidien xëy di ñu càmbaral entreprise yi bu ñu deful ndànk mun nañoo soobu ci jafe-jafe la leen war tënk di fisc bi yéen a cabinet nañuy sayto impôt yi jëmee ci ñoom euh, loole mun na leen gàllankoor ci wàllub doxalin entreprise yu bari la yoo xamante ne ci jamono ji ña leen jiite nelawatuñu ba yandoor mu ngi ci yéen a cabinet di Walf euh, Quotidien yéen a cabinet ñay loué euh, locataires yi nelawatuñu ba yandoor ndax louage gu cher yéen a nguur gi bu gannaaw bu mu jubloo ci wàññi njëgu yi ci marché yi bi la yoon nag louage ge des ma Macky Sall ne dina ci béy waaram yéen cabinet ñu ngi koy xaarandi benn fan ci weeru janvier 2023 lañ ko fas yéene jëmmal yéen cabinet bi la yoon nag duñ ko jaara jaarale ci ab décret njiitu réew Macky Sall santaane na ñu jaarale ko ci ab loi bu ñu sukkandikoo ci Abdou Karim Fofana euh, di euh, ki yor kàddug gouvernement bi ay kaddoom ci yéen cabinet di l'observateur yéen cabinet di euh, turbine mu ñuy dektal wàllub yoon jëm ci coal troisième mandat ndax duñ ko sulli bi la yoon foofee ci assemblée nationale mi fas yéene dalal tey Ismaïla Madior Fall di jor gi ñu denk wàllub yoon yéen cabinet xëy na dina firi askan wi wala boog lëtt leen ci coowal troisième mandat ndax njiitu réew Macky Sall am na sañ-sañ dagaan baatu askan wi am euh, kii di Ismaïla jor Fall jombul dina ci tontu euh, bu ñu sukkandikoo ci turbine yéen cabinet di euh, critique mu ngi ñuy dektal ba léegi ci wàllub yoon ñu ngi xaar la muy tontu la ñuy tontante ñoom ñaar diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr face to face gàngoog dañu jàkkaarloo juróom benn fan ci weeru décembre gi ñu ne lépp ngir xóotal enquete ba jëmoon ci euh, coowal Sweet Beauté euh, Sweet gàngoog ci googu les dossiers yéen kabidi le quotidien confrontation jàkkaarloo Adji Sarr ak Ousmane Sonko euh, ci mbirum Sweet Beauté yéen kabidi ñoom ñaar dañu teew ca bureau juge bi juróom benn fan ci weeru décembre gi ñu ne yéen kabidi di suuf saa ne dem rek moo fi sës Ousmane Sonko faw mu fu mu jaar faw mu dem wuy ji juge bi 11h lañ ko appal ci juróom benn décembre yéen Sonko ko bu demul bu deful ndànk yoon mun na dal ci ndoddam doyen des juges am na sañ-sañ yóbbu ko euh, mandat de dépôt bu fekkee ne demul wuyu ji ngir confrontation dox diggante mag aji Sarr ñoom ñaar yëpp kenn ku nekk euh, jot nga convocation gay wane ne war nga mun a dem wuyu ji juróom-benn fan ci weeru décembre yéen kabi di alerte quotidien feelu ko ci wàllub yoon ak euh, dossier ndem si Yàlla Fulbert Sambou yéen ne ak Didier Badji parquet beeg fa mu toll ci googule dossier information judiciaire ubbi nañ ko ngir xool euh, la sabab ak li faat euh, ndem si yàlla sergent euh, Fulbert Sambou yéenekaay bi moo ñu ko yeggee waaye nag ñu ngi amal enquête ngir xool adjudant chef Didier Badji ana fu mu féete boobu léegi réer la def kenn mën a ko teg gët yéenekaay bi di Sud Quotidien des ak ñun ci googuleeb dossier sergent Fulbert Sambou mi ñu denc yàggut yéenekaay bi ne enquête gàk fañ ca toll Alioune moom jiital African Jam Center ne lu ko ci jaaxal mooy autopsie amu ci googuleeb néewub ndem si yàlla Fulbert Fulbert Sambou te loolee bu amut jiixi jaaxa dina am ci li sabab euh, fatom la ko wundu ak la ko sooke moom la Alioune Tine bëgg a xam Alassane Seck di ku yëngu ci wàllu ak ak yelleefu doomi aadama jàpp ne tamit autopsie googe daanaka euh, munoon na xàll yoon goo xamante ne ñu bari daañu mun a am lu leer euh, ci li faat ndem si yàlla Fulbert Sambou yéen cabinet bu ñu sukkandikoo nag ci parquet bu Ndakaaru xam ne ne ne Fulbert faatu na waaye nag anam yamu faato du ku ñu fitnaal mettital ba mu faatu noonu la ko yéene kaa bi xamle libération xëy di ñu sullil audi 2020 jàpp 2021 bu ARMP yéene kaa bi ne ay mboot yu bari sulleeku nañu euh, feeñal nañu ay njuuj njaaj jalgati ak itamit tapaleek yorin bon euh, ci yenn euh, këru liggéeyukaay kaay yéene kaa bi ne jëlal piment bu Moussa Sow jiite yorin gu bon lañ koy toppee bokk na ci te mu toll ci ñetti milliards ak yu toftal jëlal DER FJ mi nga daanaka am na ay waxtaan ay marché marché yoo xam ne dañ ko waxtaanee ba jubbo amul benn appel d'offre goo xamante ne am na ca ci yooyu le marché sax cabinet Atepa gagné na fa am na fa marché gu euh, toll ci euh, maanaam euh, ñaari téeméeri million ak yu toftal ci marché yaama neex marché gré à gré nga dem ca poste Abdoulaye Bibi Baldé ma fa jiite woon nëbb na ay document jëm ci wàllu comptabilité ak finance ngir itamit nëbb njuuj njaaj ga am ca post ville de Dakar moom njuuj njaaj am na ca yorin gu bon am na fa ci njiital Sam El Wardini toll na ci ñaari eh, milliards ak yu toftal yéen cabinet yorin gu bon feeñ ca Ziguinchor ma Abdoulaye Balde jiite woon ak Pikine ma Abdoulaye eh, Timbo jiitewaat ci jamono ji eh, bu ñu sukkandikoo ci Libération yéen cabinet di la manda xëy duñu dektal wàllu mbéy meek coow li nga xamante ne am na ca jëm ci campagne yu gerte gi euh, ñoom euh, ku jeeg politique bi ci assemblée nationale gis ne euh, béykat yi bégguñ ci benn yoon démb jot nañoo dalal jawriñ gi ju dénk wallu mbay mi di Ali Ngouille Ndiaye mi ñu jukkil jafe-jafe yi tënk mbay mi ñoom opposition bi jàpp ne semence maanaam jiw gi daanaka demeewu ni engrais wax noppi jumtukaay war a gunge mbay mi daanaka jafe na lool ci béykat yi yéen a di réew mi quotidien fitna am na ca Grand Yoff xaaju guddi la waa gendarmerie. bari ca gox ba amoon fa mariage gu fa amoon ñu doon saytu nag ña jot a teew ca mariage ba ndax kayit ya ca war am nañ ko ci wàllub carte d'identité gëstu yenn cabinet ca la mbir ya nag coow tukkee ca ba jàmmarloo doxoon ca ña doon amal mariage googule ak takk der ya am ci ñaar gendarme yu ca jëlee gaañu gaañu am ci ñaar am ci juróom yoo xamante ne jege nañu marié ba teg nañ leen loxo ci jamono ji réew mi quotidien moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yenn cabinet loxo eh, ci bile mondial fës nañu lool ci xaaj bu njëkk bi yéen cabinet eh, tudd leen bokk na ci eh, Mendy ak itamit Elimane Ndiaye Kalidou Koulibaly ak itamit Sabaly ak Jacobs ba ci Aliou Cissé ak ñeneen ak ñeneen yéen cabinet di stade xëduñu ko leeralal ñu ngi waajal match gi war a dox ci diggante Sénégal ak Angleterre yenn cabinet di record ne googule match Idrissa Gana Gueye du ca bokk ndax ñaari carton jaune la am tey ji laaj bi samp mooy ndax alternative am na Aliou Cissé am na keneen ku mu mun a teg ci place su Idrissa Gana Gueye yéen cabinet lépp dina leer ni ki gi ñu jëm diggante euh, Sénégal ak Angleterre yem fu ñu jeexalee xëtu yéen kaay incha allah tënk la woon daan leen ko jukkil na mu gën a yaatoo ci xibaaru digg bëccëg gi. indi leen garab gu yéeme yéeme di faj juróom-ñaar fukki jàngoro 70 maladies. Ah, loolee tax mu dippee ko si faaxu joni joni Cheikh Ousmane Touré nee na dina faj lii di tension hémorroïde interne externe estomac rhumatisme ballonnement muy biir boo di jooy. Ah, tëlee ulcère impuissance sexuelle fatiguement générale nag moo ci man yéen ñi bëgg am adresse ki nga xam moo di Cheikh Ousmane Touré mën ngeen ko fekk fii ci Dakar Guédiawaye Sam Notaire match jeudi en face terminus 38 dama ni jël leen gaaw numéro téléphone bi la 767 57 11 su faawu daal mooy mos dolli